donc c'était ça en 1963 en 1970 mu am beneen réforme réforme boobu lañ ci doon dugal poste premier ministre 2001 mu am beneen réforme bii mooy réforme bi Macky Sall waxoon bi mu falu mu ne réew mi li fi nekkoon dinaa ko régler damay indi rupture ñu def constitution bu am njëriñ bu baax a baax lan la Macky Sall def mu jël ay kilifa Amadou Makhtar Mbow ak ñeneen jox leen ay millions yu nga xam ne réew mi ñoo ko moom ne leen dem leen xalaatal ma nu ñu ko au xalaat bu rafet bi nga xam ne nit ñi mënoon nañ ko discuter mu jël xalaat boobu ne Sénégal bii ngeen na wax mooy Sénégal bi gën mooy Sénégal bi baax mooy Sénégal bi mais man du ko def parce que nag sama nguur dafay dama koy ñàkk mu bañ ne na si jël lu ko mu toog ba mu neex ko mu proposé ñu réforme mu indi mais réforme yi mu duñ ko sànni rek daañu d'accord ñu dafa am li nga xam ne amul sens par exemple am na point bi nga xam ne dafa ne woon. parti ñi nga xam ne ay indépendant indépendant bokk bokkuñ ci benn parti ñooñu il faut que ñu permettre leen ñu dem dugg ci élection yi moom moo ko wax mais loolu boo ko bëggee def te nga bëgg a dëggal sa kas comme ñu mbëri di wax dëggalal sa bopp bu bëggee dëggal boppam lan la war a def mooy ñu modifier texte yi ba nga xam ne ni ñuy falee député yi par exemple nga xam ne si département Thiès par exemple boo ëppalee nit ki benn voix sax yaay jël député loolu dañ ko war bu ko changer xam ne façon proportionnelle dañuy séddale kenn ku nekk nombre de voix yi nga am je pense que dina permettre parti yu ndaw yi wala coalition parti yu ndaw yi ak ñu ne xam ne indépendant ñu mun a dugg yeneen yi damay tënk rek yeneen yi xam ne gis nañ président Macky Sall mu ne conseil constitutionnel moom mooy fal président bi sa wolof ëmb sa sankal ëmb sa sutura kii mu fal nii actuellement magistrat la woon bu nekkoon a la retraite monsieur Sakho moom la indi bu ko indi lu président bëgg la koy defal gis nañ fi Côte d'Ivoire ne Paul Yaoundé def loon euh, Laurent Gbagbo li ma bëggoon la ko defar mais bi pression bi diisee si kawam def si génn wax Alassane Ouattara moo raw kon dañoo yaakaar ne bu ñu tànnee juróom-ñaar yooyu ba pare ñoom juróom ñaari ñoo war a tase seen biir soit ñu d'accord si kenn wala ñu voté pour fal seen njiit je pense que nañu am indépendance et lii am problème aussi si conseil constitutionnel boobu dañu wax ne que conseil constitutionnel juróom-ñaari nit la président mooy fal ñaari wax président assemblée nationale indi ma benn liste ñeenti nit. ma tànn si ñaar mais loolu mooy président mooy tànn juróom-ñaari parce que ñeent yooyu sax bu si gis lu mu bëgg mën na ko def beneen liste lu ñu proposé moo ñu changé ko ñu ne président c'est de yàlla encore ñu ne président de l'Assemblée nationale mooy proposé ñaar kese te ñaar yooyu balaa ma koy proposé na aviser bureau bi parce que bu bureau bi amee information bu fekkee dafa nekk président assemblée nationale bu yaafus bu demee si président mën bi. président de façon irrévocable mënul si dem loolu aussi bokk na si li nga xam ne dugal nañ ko si mais li nga xam ne ñu mën mais problème bi dëgg parce que Sénégal coow bi tey mooy affaire laïcité ak góor jigéen c'est vrai laïcité ku nekk yaa si joxe sa xam-xam ñii dañ koy waxee nii mooy laïcité ñii waxee ko nii mais en vérité dëkk bu nekk da nga war a mën a dund si sa cosaan si sa aada ak si sa gëm-gëm. France la laïcité jógee ñoom le 9 décembre 1905 bu ma juum mu nekk une loi foofu ñu dugal ko seen constitution génnee église bi si jeu politique foofu la affaire bi jógee comme Diomaye nee nañu Senghor France la woon bi ñu amee indépendance 1960 entre guillemets Senghor comme France la woon li France am la fi dugal en vérité mu mu dugal mu dugal fi loolu donc laïcité li muy tekk en vérité si lu gàtt mooy. génneel loxo yàlla si doxalinu réew mi si doxalinu kuréel yi maanaam ni yàlla waxee doomu aadama nii ngeen war a defee ni ngeen war a defee ni yow yàlla mën nga xaar foofu rek ba karoog àlaaxira mais ñun bàyyi ñu ñu juge ak suñu religion lan mooy suñu religion socialisme la ñu gëm libéralisme la ñu gëm euh, euh, communisme la ñu gëm loolu lañu ñu gëm bàyyi ñu ñu doxale en vérité génneel loxo yàlla si loolu mooy laïcité et laïcité boobu mu ngi si biir président karoog dafa woo ay imam ay nitu yàlla woo leen di jéem a expliquer ne leen dindi nañu moo laïcité si biir laïcité lii la ñu dañu yàq der mais en vérité ko parce que si biir si boo ko lii dañuy wax la forme républicaine de l' état forme républicaine de l' état si ko am xam-xam ko du jàng lu mu signifié mooy dëkk bi nga xam ne dañu génne loxo yàlla si biir mooy dëkk démocratique social ak bi nga xam ne kenn mun ko xaajale bi que France dina loolu loolu mooy laïcité kon laïcité si biir man de bu ma dee taalibe sama kilifa wala ma semaine sël ma de ko mën a voté te xam ne que dana génn yàlla na génn loxoom si doxalinu réew mi billaahi wallaahi taalaay dootuma jiite te fu mu yaakaaree aljana nag man dinaa fa yaakaar aljana c'est ça la vérité beneen problème bi ñu ne ñu affaire góor jigéen président nee na non dañu yàq sama xel waxuma si affaire góor jigéen feeñul feeñ mais si dafa am ay points yu ñuy wax les clauses d'éternité maanaam dañ ko tënk loolu président dafa jël lu ko neex daan ne lii. fii ba àdduna tukki même peuple sénégalais mënatul leen si dellu ginnaaw mooy mandat ñaari président yu cinq mooy mooy li donc li mu bëgg dugal na ko foofu mais comme nee na moom tant que mu ngi fi góor jigéen du fi am dégg ngeen baax wax ngi fi góor jigéen du fi am ce qui veut dire bu ma fa jógee kon mën na fi am du ma sax si li mu doon wax bu njëkk bi mais li muy bu fekkee ne bëgg na dëgg wal na que ne jàppalewul góor jigéen ñi parce que ministre de la justice bi moo doon défendre góor jigéen ñi kan moo ko imposer Sidiki Kaba pour mu ñëw nekk ministre de la justice kan moo ko imposer parce que Sénégal amul indépendance bi Abdoulaye Wade ñëw dafa génne tubaab yëpp génne promoteur euh, tubaab yëpp indifi fi ay arabe ay cubain ak ay sénégal bi Macky Sall ñëwee ñëpp la dellu tubaab il agit sur la dictée de France bi ñu xasee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Paris dafa taal avion bi si xaalisu Sénégal yi ne dem mu ngi dem marche contre ñoom moom moo ne woon si citoyen ordinaire la ñu teg si mu ne kurus mënul développer réew mais réew pour mu développer il faut que mu am jàmm te jàmm boobu dañ koy ñaan donc lépp lu Moussa wane dafa bëgg a wan ne que ne sëriñ si islam wax dëgg yàlla mu ngi noonu parce que ñi koy wax si suuf parce que il faut nga xam adduna bi nu muy doxee adduna bi dafa am ay lobby yu puissant jar xaalis di décider lii mooy am comme ni ñu séddee woon rek conférence de Berlin ni ñu séddee woon euh, Afrique français yi allemand yi euh, kii anglais bon yow booy jëlal lii yow jëlal lii yow jëlal li c'est exactement la même chose qui se passe donc dañ ko jox ay lu muy def donc pour ma ñëwaat si góor jigéen bi tëjee foofu bu fekkee bëgg na ko dindi président Macky Sall na ko duggal si clause d'éternité yi daa di bind ne euh, maanaam góor jigéen kenn mënatu ko reconnaître ba ilaa yow mi diin fii si Sénégal yomb na ko billaahi mën na nekk c'est possible li tax defu ko kon loolu muy wax Serigne Sarr lu mu wax citoyen méngiwul ak li nga xam ne moo am yooyu yëpp mun nañ si mais bi si gën a métti xol mooy dañu wax ne loi kenn du ko def pour benn nit une loi a une portée générale et impersonnelle maanaam loi dafa war a dal si kaw ñëpp te du viser benn nit proposition yu mu indi fii mu ne dañu créer haut conseil des collectivités locales maanaam Sénat bi la bëgg a dellu si mais loi bi daf ko créer pour benn nit mooy Ousmane Tanor Dieng parce que président Macky Sall. dafa dajale la vieille garde la sociale ce qu'on appelle la garde verte Tanor Dieng Moustapha Niass Djibo Ka ñoo xam ne ñoom suñu bëgg a gisante seen biir ñoom la indi seen biir sedd na Moustapha ñas sedd na Djibo Ka kon lii la bëgg a sedd Tanor jox ko ay milliards jox ko ay possibilités et xoolee li mu sedd Tanor ak li mu sedd Djibo Ka war na tuuti waroo xëy na nag dina ko jéem a rectifier donc suñu xaalis boobu mu bëgg jox pour créer Ousmane Tanor Dieng dañ duñ ko d'accord fi nga xam ne aussi moo gën a métti. réew dañ lay jàngale nu ñu koy doxale man yàlla dafa def chance ma nekkoon député pendant fukki at ak ñaar yàlla def un peu partout si Afrique bi si suuf ma ma fay voyage di jàng ay yàlla boole ma nag ay njiitu réew yu ma xam ay président ancien président ay premier ministre ay président ñu toog di waxtaan li xew Sénégal même fii li xew Sénégal des choses lii lii donc réew dafa am ni nga xam ne noonu lañ koy lañ koy lañ lañ lañ koy. Euh, lañ koy lañ koy yore donc le 16 mars réew bu nekk da am sa histoire fukki fan ak juróom-benn si weeru mars 1994 danoo rey si centenaire Dakar juróom-benn policier rey bu ñaaw ñu jiiñ ko Moussa si diine yi tas ko le 16 mars 1994 président bàyyi ba le 16 mars nga xam ne 16 mars boobu dañoo waroon fàttaliku policier yooyu sargal leen ñaanal leen mu bàyyi ba dag boobu mu wax ak Sénégalais yi li mu bëgg a def. loolu mooy fàttaleen lele ngeen jàpp si lii parce que en vérité lan la bëgg a régler suñu xalaat ñun parce que le 16 mars bi ñu reyee policiers yi Djibo Kama wax si émission xel xel li bu amoon Sud FM Ndiaye Diop moo ko doon animé bu ma juumul jibo ko ne le 16 mars présidence de la république bële ña ko jiite ñëpp xam ñu ko jiite Senghor euh, Abdou Diouf la woon ak Ousmane Tanor Dieng xamoon nañ li ñuy préparé mais dañoo bàyyi woon noonu pour bu ñu reyee policiers yi. comme man naa ministre de l' ñu teg ko sama kaw comme ça xëccoo bi may def ak Ousmane Tanor Dieng ñu écarté ma parce que ñëpp xamoon na Abdou Diouf Tanor Dieng lay jàppale sa c' est malheureux que président Macky Sall daju mel loolu mu koy effacé donc loolu bokk donc bi ñu gisee yëpp moo tax ñu ne déet la ñu voté di sax sénégalais yi ñu voté déet loolu daal mooy si tënk si wolof li nga xam ñu ñaan yàlla nag yàlla musal Sénégal. ñuy fàttali que Sénégal amoon na problème cent 1968 ñu jàng histoire xam ne 1968 étudiants dañoo génnoon syndicalistes yi génn population yi génn Senghor doon ko soofantal mais ba ko mbir mi ëppee loxo dafa daw génn génn capital wax armée française na ñëw wallu ko loolu la Senghor defoon bi mu taseel benn général sénégalais ñu wax Jean Alfred Diallo si conseil de sécurité Jean Alfred Diallo ne ko yow Senghor ana say militant parce que militant ñoo ko wooy Senghor le président la mooy comme ni am fii rek sa président yow la appel la ñuy def mu ne ko an say militant Senghor xam na jàppal ne ko président jëlal nguur gi bu la neexee wante ak xam naa ne peut être dara du am ñaanu yàlla nag ñu egg si foofu moo tax ñu bëgg référendum bi soit mu dàq ko respecté Sénégal ak parti politique yi waxtaan ak nit ñi bañ a yàq xaalis ci Sénégal si référendum bi nga xam ne la sa amoon solo mooy la mu diggoon Sénégalais yi te dindi na kàddoom si présence bi di xaar seen question je vous remercie